لي سكينة بكل الجنة من دار المنن يا المنى لي سكينة بكل الجنة من دار المنن يا المنى toujours ma wax ne nit ñi day xamuñu sëñ Muntaxa waaye ñun ñi nga xam ne yàlla baaxe nañu ba ñu jege ko xam nañu ne bëri na loo xam ne cere ju ñu siimee ndoxum xorom rek rek lay mos diggu bëccëg te yàpp woto woor fi ne fi ganaar yi ne fi jën yi ne fi xoolu ko xiiful lu dul sëñ Tuubaa biiram dara néew ci kenn néew ci ku dul sëñ Tuubaa sens la lool lool lool nga mës ko ji benn yoon waxuma laa nga mën a am sensu toog jàkkaarloog moom say loxo dugg ci ay loxoom nga wax mu dégg mu wax nga dégg nit ñi nag léegi dañoo jëm ci alal waaye loolu moo gën alali àddina bi yépp teg sa loxo sa loxo moo ko gën waaw te ñoo ne ma yoo dey eh, dangaa ëppal ci li ngay wax sëñ may na loolu tuub leen ko bu doon bu doon suuf si la joxuma ko lu tolloog benn poppi suuf bu doon suuf si mooy àqam waaw mënuma koo jox àqam danaa jéem nag waaye moom rek moom moo jar eh, jox àqam lii ñu ma am ci sëñ mu Mountakha ak sama sens la yàlla mooy ki ma ko defal waaye ut ko taxu koo am moom la yàlla def mu topp ci tànki sunu bàyyi sëriñ Basiiru ca ñam wala leen toon ci xawlax di leen seet mu ñëw ci kër gi di dox tànki sëriñ Basiiru fekk ma fa mayit ma xam ni am na sens boo xam ne bu dee dafa ñëw ba fëgg sa bunt te ubbiwoo dootu ñëw len rek ma xam ne lii mbir yàlla la tële nañu sax di wax ma indil ko téere bi nga xam ni sama bàyyi ko bind ci tagg yonent bi ak tagg woo xam ne daf koo taggewoon sëñ Tuubaa ci bindu loxoom ci njaareem ci foofu mu ne sëñ bi ci njaareem bu mag bi ne woon fa waaw ba mu bindee te eh, woy wi li mu ci wax mooy def koo ne dangaa jox son baay kaamil eh, tafsiru jëlaale ni te kenn amu ko ci réew mi ku yow ndax joo jamono li muy jar ci alal kenn amu ko mu ne ko waaye jëlaale ni bi firiwul téere bi yow lay firi yow sëñ Tuubaa yu yaay alxuraan juy dox tagg ko yokkul ci moom dara ndax yàlla tagg na ko ba noppi yonent bi tagg na ko ba noppi jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. jërëjëf jërëjëf. ci man rek. rek doy na. na ëpp na yàlla na sax yàlla yàggal la fi lool. amiin yàlla yàggal la fi lool. lool. yàgg ñoo jiite lool. amiin réew mi nag ñëpp sa njaboot la. même ñu ne ci di jeneen diine sa dëkk ci réew mi sa njaboot lañ. mala yi sa njaboot la gàncax gi sa njaboot la nit ñi sa njaboot la te yow macha allah waxuma la loo ñaan waaye lu lu dugg lu sa xel daj rek loola di aaju ju fajul jërëjëf Mbacke Diop alhamdulilah bi alamin lépp cant sant yàlla eh, ñëw nañu fii tey di féddali kóllëre yi nga xam ni moo dox suñu diggante ak ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké te jëmmal jëmmi sëñ Tuubaa ci kaw suuf ñëw di ko ndokkeel ci weer wi ak ci bis bi ak ci leelatul xadar bi ndax euh, diggante bi dafa yàgg wax na ni yàgg na ba ci maam Maaram Mbàkke ak sunu maam ju kowe mu ñëw ba ci sëñ bu mag bi jàll ci diggante suñu basiiru ak suma wàjjur góor yàlla def nag suñ muntaxaa ci mbaaxam jëmmi jamono mu nekk kawlax doon dox tànk yi sëñ basiiru daan dox ci kër yi ko daan dox mu dox ko fekk ma fa ca kër gi ma gis ko rek xam ne kii la kii la du keneen ma nga ba léegi nag ci mbaaxam mu di may baaxe ay ngan di jóg fii di ma fekk Kaolack di ñëw fii jógee fii di ma fekk Dakar euh, ku nekk xam na ne bu doon euh, alal mooy tax nit am sëñ Muntaxa dox ba ci yow kon kenn du ci jot waaye ku ne xam na ni moom faalewul àllali àddina moom loolu la ko sëñ bi bàyyee tànki sëñ ba rek suba ngoon bu dégg ba cëg wax ko léegi ñu ko xamul xamuñu ne moom añ cere ju ñu siimul ñu def ci tuuti ndox muñ xorom mooy añam te mi ngi joxe uh, wataboor ku ne ak i ganaar ak leneen ak leneen kon nag buñ yàlla maye a ah, moom it mu baaxee ñu kanamam gu leer googu ak macha allah di muuñ ko ci yow loolu ci bo loolu ci boppam ñoom àjjana la kon nag loolu tax ñu ñëw itam moom njàngum xasaayit mi nga xam ne xasaayit yi xasaayit li tekki mooy jëmu fa mu jëm nag ka ko tax a xasdu mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi la ju jëm ci rasul te kon xaadim ak rasul kenn lañ benn lañ kon wax jooju wax ju kawe la yoo xam ne ki koy jàng ak ki koy déglu te teewlu ko mënu caa jëlee lu mooy njëriñ loo xam ne foog na njortam sëñ Muntaxa yal na yàlla bu dëw fanam lool mboolem ku sant Mbàkke ku mës a ci kaw suuf yàlla na ci dund loo xam ne kenn mësu ko ci dund boole ko ak ak wér e di sant yàlla di ñaan at mune yàlla may ñu ñëw feddali kóllëre yi gii nga xam ne yàlla ak yonent bi ñoo ko moom li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna